ahousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi seen site internet bi di 24 actu comme niñ ko baaxoo di ànd yéen saa su nekk ci seen émission bi nga xam rek moom la dippee gëstu diina ji gëstu diina ji nag mu nekk émission boo xam ne mën nañ émission bu yaatu lay doon lépp loo xam rek mën na leen ump ci diina ji la fës nañ ko yéenee ànd ak yéen borom xam-xam bu ñëpp ràññee euh, xam naa ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo tey ñu soog di wax ci li nga xam ne rek mooy ñu tax a jukk ak thème bi lan la sëñ Xaadim maa ngi lay nuyu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin wa kun muhisan lana min sarri si hasadin mahsarifan min wa sarril hayni yallahu wa sarri sihrin wa sarril xalqi insihimu mahjinihim wa sawaati sumiyallahu wal taxmina xan dararil kalaami wal xayni wa sihri bil anfisaami asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julli di bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu soxna Astou mi nga xam ne moo ñu dalal tey jii nii di ko sant bu baax a baax a baax di ko wax ne dafa baax rek di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Euh, site bii nga xam ne mooy vingt 24 actu bi 24 actu ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax te di leen jaare bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax a baax itam ci weeru koor gi jërëjëf sëñ Xaadim ci euh, nuyoo bu am solo boobee comme niñ leen ko junjee woon sànq rek ci bopp jotaay bi ngeen ñuy topp ci seen émission bi di gëstu diina ji tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci thème bu am solo ku ne xam na ne ci weeru koor la ñu nekk weeru koor nag bëri ay njariñ ay ngëneel euh, kon nag jot na tey ñu gën koo faram nit ñi donte am na ci ñoo xam ne sax xam nañ lan mooy weeru koor waaye nag que fàttalante dafa baax rawate nañu nekk ay jullit tey fas yéene nañu nañoo jàkkaarloo ki nga xam ne rek moo di sëñ Xaadim la euh, fas yéene koo laaj lan mooy weeru koor sëñ Xaadim jërëjëf soxna ci laaj bu am solo boobu mu mel ne lan mooy weeru koor weeru koor buñ ko waxee dafa bokk ci keno yi nga xam ne moo téye chariatul islam ndax lislaam dafa am juróomi keno yoo xamante ne nii mooy keno yi nga xam ne ku ci ku gëm yëpp sa gëm day daal di mat waaye ku ci bàyyi benn rek sa gëm day daal di manqué mu mel ne buñ ko doon misaal dañuy wax ne néeg la boo xamante ni juróomi bant ñoo ko téye bant yooyu benn bu ca manqué rek lu mu néew néew néew dootul mën a téye néeg ba néeg ba day daal di daanu weeru koor kon noonu la demee ci biir chariatul islam ginnaaw seede ne amul benn boor bu dul yàlla Muhammad yàllaa ko yónni julli ñëw koor kon day ñëw taxawaay taxaw taxaw taxawaayam moom itam eh, di wane ne moom itam ci ponk diine yi la bokk ni nga xamante ne ni azaka noonu lay ñëwee taxaw aj màkka yi dóori ñoom waaye koor itam di loo xamante ne ni suñu borom da koo farataal ci jullit ñi ni nga xam ne noonu la ko farataale woon ci njëkk ndax doonut ne ci jullit ñi ci ñun ñii rek la ko njëkk farataal kon day mel ni wane na ne kon important bi nga xam ne am na ko ci doomu aadama ba tax suñu borom farataaloon ko ci ñu njëkk door koo farataalaat ci ñun ndax dem ko ci alquran fekk fa suñu borom di wax ne yaa ayyuha allazina amanu kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum ni nga xam ne noonu la noonu lañ ko farataale woon ci ñi leen jiitu woon mu teg ci ne laallakum tattaqoon ngir ngeen mën cee amee ak ragal yàlla kon ragal yàlla gi nga xam ne moom la suñu borom di sàkku ci doomu aadama bi jamono bu ne te mooy jëfe ndigal bàyyi tere loolu ñu koy woowe ragal yàlla moom la suñu borom bëgg ci ñun moo tax mu farataal ci ñun koor bi ko suñu borom di farataal it ngi ko farataal ñaareelu at ci gàddaay bi ginnaaw bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge na màkka ba dem madina ba am ñaari at ci la suñu borom wàcce aaya bi ngir farataal ko ci jullit ñi ñu man di ko def ñu koy def ba suñu jamono ji kon weeru koor mu leen tënkal ci tënk bi gën a gàtt rek lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy koor dama la koy tënkal ci tënk bu gën a gàtt boobu rek wax ne la euh, lii mooy weeru koor ci nii la jaare fii la ko euh, ci nii itam la ko suñu borom wàccee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko def ba agsi fii nii jërëjëf xaa Xaadim ci leeral yoo am solo yooyu waaye dafa mel ni danga aay bi dafa daanoo baat bu am solo muy laalakum tattaxun googu nga wax mu mel ni dañoo toll jamono joo xam ne gis nañ ne weeru koor day ñëw ñëwati yaakaar naa ne moom weeru koor doon na loo xam ne at mu jot rek doomu aadama yi koy def waaye ñu nemmeeku ne doomu aadama yi da ngay gis ñoo xamante ne dañuy wóor pare waaye dafay mel ni euh, tattaxoon googu ñuy wax muy ragal yàlla googu euh, donte sama genre gi tamit comme ñu joxee ci exemple rek euh, waaye liñ ci bëgg dëgg-dëgg boo xoolee doomu aadama yi mën naa ne du am ci ñoom jërëjëf soxna su mu mel ne laaj boobu it am na solo ndax suñu borom bi mu wàccee weeru koor ci ñun ni ma ko waxee laxan lakum tattaqun la wax ngir ñu mën cee amee ak ragal yàlla loolu nag euh, léeg day bokk ci li koy waral mooy mbir su fekkee dañ koo wàcce ci nit ki mu ñëw ci yow dangaa war a xam dëgg dëgg dëgg mbir moomu mooy lan nga xam dëgg dëgg dëgg nan lañ ko war a defee nga xam dëgg dëgg dëgg àq jim laaj nga joxe ko ndax li ëpp ci doomu aadama yi liñ gën a jàppe koor mooy buñ xëyee xiif mar rek woor nañ te fekk loolu du loolu dong ci la nit ki mën a amee ak ragal yàlla waaye dañuy wax ne nit ki ci biir koor gi ni ko sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu waxe wax ne euh, su mun muntabihu euh, euh, laa taxtasir fi hadamil akli faxat fatuxramu kon loolu lu mat a bàyyi xel la loo xamante ni doomu aadama bi mooy tax maanaam mu mën cee amee ragal yàlla googu nga xam ne moom moom moo tax moo tax moo tax moo tax moo moo tax ñuy mën a wax ci ñàkk a lekk ñàkk naan gi nag su jàllee nit ki dafa cee war a boole xam ne bëtam dafa war a woor làmmiñam dafa war a woor ay tànkam dafa war a woor ay loxoom dafa war a woor yooyu nag nga xam ne dafa war a woor nit ki war koo xam su fekkee yooyu mu war a wooral wóoralu ko nag su ca jógee yooyee cër yooyee lam tàmmoon rek loolay continuer di ko def ba léegi nii loolu lay continuer di ko def ba léegi ni kon loolu dafa bokk ci yi nga xam ne nit ki euh, maanaam war na koo xam baax a baax mooy li ma dox ndànk ni sëñ bi ne su masiya muntabihon lam yan lam yan xasir fii adamil akli faxat euh, fii maxtu bir kon loolu mat naa bàyyi xel mooy koor tekkiwut takkuwut ci ñàkk lekk ñàkk naan dong loolu soo ko defee dangay ngay ndax mën ngaa xiif mën ngaa mar defe ne woor nga te fekk déedéet wóoroo ndax la sëñ bi di wax ne isrub ba shaa'imin mahal jamaa laysa lahu fihi siwal majaa mu ne bari waa na koy woor ànd ak mbooloo mi di kërëj kërëj yi di dem ak ñëw rek fekk kooram googu amu ci lu dul xiifam bi ak maram wi ñu ne ko kon lan mooy woor mu ne nit ki su wooree maanaam day fexe bàyyi xool lu araam dox bàyyi dox jëm ci lu araam bàyyi déglu lu araam bàyyi wax wax joo xam ne wax ju araam la ba bàyyi sax xalaat boo xam ne xalaat bu araam la wala xalaat bu suufe la su boobaa yooyu nag su ko bàyyee taqoo gi mu koy taqoo tax gi mu koy taqoo ci bëccëgu weeru koor gi di ko def di ko def ba mu mat weer ba mu mat fanweeri fan su boobaa loolee ci lay mën a jóge ay cëram tàmm xool lu dagan ay noppam tàmm diglu lu dagan ay tànkam tàmm dox lu dagan ay loxoom tàmm di jàpp lu dagan làmmiñam tàmm wax lu dagan su boobaa nag su koy répété weer wu jot muy ñëw weer wu jot muy ñëw weer wu jot muy ñëw day dem ba mujj gi nag xolam day mujj set wicc mu mën a ame ragal yàlla googu ndax yoo xam ne suñu borom lim ñuy digal ak lim ñuy tere jëf ji rek moo ci am solo tekku ni boo ko jëfee mel mu bëgg waaye ci kaw góorgóorlu gi nga góorlu di ko jëf nag ci la dimbalee moom maanaam jàppale la amee ci taqwa googu nga xam ne moom lay sàkku ci yow moo tax suñ bi di wax ne fal tumsiku an nasratin ila al aram wal masi wa samhim lahu mahal kalaam wa kullu fikratin radiyatin kama taraktumu aklan wa surban ulima kon nit ki ni mu bàyyee lekk bàyyee ko naan noonu lay bàyyee lépp loo xam ne boroomam da koo tere looloo ko mën a jox taqwaa gi nga xam ne moo tax suñu borom di wax ci alquran ne la'allakum tattaqun kon tontu boobu soxna Jaara soxna Assu mu mel ne kon loolu rek lañ ci doon leeral ba léegi dañuy desandiwaat foofu mu mel ni dañuy nemmeeku ne nit ñi dafa am ñoo xamante ni bu ñu wóoree daal dañuy jàpp ne koor moom tëdd rek la ba ci sax damay nemmeeku ci weeru koor bi am si ñoo xam ne dañuy woor waaye julli duñ ko ca boole ñooñ tamit euh, sëñ Xaadim bëgg naa nga gën cee indi ay leeral waaw loolu dafay mel ni am na foo xam ne sëriñ bi mi ñu ko fay leeral di wax ne am na si ñoo xam ne suñu wooree seenu koor mooy lan mooy lekk naan tëdd nelaw lekk naan tëdd nelaw ñoom noonu la ñuy woore lekk naan tëdd nelaw sëriñ bi nag da wax ne ñoo ñuy def loolu de nañ xam ne ñoom ak bahima yi ñooyam ndax bahima kat moom nekk ci àdduna du lekk naan tëdd nelaw moo tax sëriñ bi di wax ne laa tuksiru suhuura wal futuura waxta siyaamikum fa tuhramul ujur is kullu man mala a batnahu taxaam wa aksara surba alayhi wal manaam fa ma innahu mahal bahimati stawa isfaatuhu xayrun kasirun wa tawa ku mel noonu yiw bu baree bari bari daf koy faat ndax bu fekkente ne waxtu dog dafa jot nga doga nga dog ba sa biir feet ni ba sa ba sa biir fees ni ko jaxate-jaxate yi di defee wala ñi sant loo ba noppi bu dog euh, xëdd jotee nga defewaat ko noonu bëccëg ak weeru koor lépp nga maase ko daal di koy nelaw kon yow ana lan nga def ci yow ci ci ci ci ci tàquwaa googu suñu borom di sàkku ci yow ci am yàlla kon loolu day mel ne aada ja nga nekkoon démb rek ci nga delluwaat na ci nit ñi itam xamante ne nii nii leen suñu borom bindee ñoom bu ñu wooree liñ jàpp rek mooy ni mu ñu ko waxee sànq tëdd nelaw la ñuy def waaye nag julli wala jàng alxuraan wala def salaatu ala nabi wala jàng lu mel ne xasida seen ci waaye boolewuñ ko seen programme te fekk xamuñ ne loolu ni nga ko daan defee burul weeru koor bu weeru koor dikkee ci nga ko war a gën a man mën ndax ku ne xam na ne nit bu biiram feesee lam soxla woon ci jaamu yàlla dootu ko man su boobaa tëdd noppalu wala tëdd dalu lay man waaye nit ki bu xasee xiif nag ci lay gën a soxlaa ak jaamu yàlla ndax nit ki bu julleegut bu añagut sax julli tisbaar mooy gën a yomb ci moom mu añ ba pare bëgg a julli tisbaar ci nga ci xamee ne ko nit ki su wooree xiif boobu muy àndal moo ko mën a permettre mu mën a julli na mu ko bëggee mën a jàng alxuraan na mu ko bëggee mën a jàng xasida na mu ko mën a def salaatu xaala na mu ko bëggee am na ci nit ñi nag ñoo xamante ni bu ñu xasee woor julli moom bokkutul seen programme moom dañ koy global rek ba timis jot ñu bëgg a boole lépp julleendoo ko wala jàng alxuraan bokkul seen programme jàng xasida salaatu xaala nabi istixfaar duñ ci def dara ñoom daal xiif beeg bi lañ eh, lijjanti lu dul nag bu ñu amee leen lu ñu dàq seen koor ci yeneen xeeti foy yi lay doon yoo xam ni lu mel ni lido wala lu mel ni maanaam mm, plaisir yi nga xam ne nit ñi dañ koy def ci la rey seen temps bi te yëguñ ne mi ngi wàññi seenu seenu seenu biol julli nag dafa am important ci lislaam boo xamante ne nii maanaam damay wax ne jaamu yàlla yépp day mel ne booy xool julli rek la ñu suñu borom sant yi ci des yépp ko am ngànt mën nga ko ba julli rek moo ci loo ne boo amee ngànt mënoo ko ba moom bii ba faatu kenn du la ko teggal waaye beneen jaamu yàlla gu mu mën di doon soo amee mën nañ la koo teggal kon loolu mat na cee bàyyi xel am na ci ñoom ne bu ñu wooree defe nañ ne duñ julli te xamuñ ne am na ci foqaxaaw sax ñu wax ne maanaam nit ki su demoon ba nga xam ne li euh, laxti kaaf na nga maanaam sonn na sonn goo xam ne mënatut a julli ci koor gi dog koor gi sax dem taxawal julli gi moo gën a ëpp farata ci moom kon lu àgg foofu nag ci dayoo boo ko xamee kon doo woor ba noppi di ko ñàkk bañ a def kon te loolu lu mat a bàyyi xel te nit itam bu wooree te julliwut itam ma ngay def leneen loo xam ne moo gën a métti julli te bàyyiwu ci xel yooyu nag lu seytaane dugal ñu xel yi la di ko di ko bàyyi waaye julli euh, euh, maanaam important bi mu am ci lislaam nga xam ne wax nañ ne moom képp rek boo ko màbbee màbb nga diine ku ko taxawal taxawal nga diine euh, bu weeru koor dikkee yaakaar naa farlu nga ci war a gën a defu ci lu dul nag maanaam nga doon koo xamante ni da ngay bañ a julli ci bëccëgu weeru koor Euh, loolu moom yaakaar naa ku ku nite dëgg dëgg dëgg daal moom bokkul ci li nga xam ne lu muy def la soxna Astou jërëjëf sëñ Xaadim comme ni nga ko waxee rek euh, julli boo ko mabbee mabb nga diine waaye tamit taxawal taxawal nga diine kon loolu xam naa ñu gën koo bàyyiloo xel suñu bokk ñi nga xam ñu sant Lo ak Jaxate ñu bàyyi xel bu baax a baax sëñ Xaadim ñu bëgg nga dikkal ñu ci lan mooy euh, faratay koor ak lan mooy sunnay koor laaj nga itam lu mat a laaj mooy lu ëpp important ci li nga xam ne maanaam moom lañ doon wax boobu ba léegi muy faratay koor ak sunnay koor ndax jaamu yàlla gu ne da cay am ay ay keno lu ñuy tudde ay keno keno yoo xamante ne nii nit ki su ko su ko taxawalee rek taxawal na jaamu yàlla gi waaye keno yooyu su ca bàyyee benn rek day mel ne jaamu yàlla kooku dootul mat loolu am na ci njàpp am na ci julli am na ci lu baree baree bari ci xeetu jaamu yàlla yëpp day mel ne farata lu ci dul mën a ñàkk la mooy li nga xam ne nag tey jii ñu ne la njàpp kat farata yi bu ci benn manqué rek njàpp ma dootul baax wala euh, julli gi faratay bu ci benn manqué njàpp mi dootul baax ak yu demee noonu léegi nag bu fekkente ni ci weeru koor gi nag moom ay farataam dafa bëriwut ñaar rek la euh, benn bi nag moo yaatu bëriwut benn lañ waaye dafa yaatu euh, ñaari bi ci jiitu mooy maanaam yéene yéene mun a ñàkk ci weeru koor mais nag dafa dafa par rapport ak yeneen yéene ci julli wala ci wala ci wala ci wala ci jàpp wala ci ndax jàpp nit ki mën naa tàmbali raxas loxoom raxas euh, euh, galax ndi ko soxna ba agsi ci xar kanam door a yéene waale njàpp mi daal di bu dee julli bu li xaamee ba yëkkati loxoom tolloog ay nopp mën naa yéene waale foofu yéene koor nag bokkut ak loolu yéene koor da nga koy jiital moom toogaat lu yàgg muy door a ñëw maanaam nit ki mënut a bàyyi ba fajar fenk mu door a wax ne yéene naa koor gi su boobaa koor gi du day du baax kon yéene gi da nga koy fanaanoo ci guddi gi daal ne yéene naa bu subaa ma woor te fas ko fas gu dëgër dara bañ koo fecc du am jax-jaxi du am sikki saaka du am dara su loolu amee nag nga fanaanee ko noonu fanaanee ko noonu fanaanee ko noonu ba xëy suba te dara yàqul yéene ji soo xëyee koor koor googu mën nañoo rafet njort ci ne koor gu baax la ba tey bu fekkee bépp koor goo xam ni tataabon la koor goo xam dafa toftaloo may nañ la boo ko yéene nga yéeneendoo ko benn yoon ni ko weeru koor gi tey ji maanaam euh, dañ ko dañ euh, bi muy tàmbali guddi gu njëkk gi bi ngay naafi la wala ci guddi gi rek moo xam nga fas ko daan ne fas na maa yéene woor weeru koor gi yépp li fekk amaatoo ngànt ci diggante bi rek jëratul ngay yeesalaat yéene gi sa guddi nga koy yée nga koy yéenewaat waaye na nga xam ne moom farata bi ci njëkk mooy yéene ji munta ñàkk te ci guddi gi lañ koy def ku bàyyi ba xëy suba def ko du baax ndax bu doon loolu da nga gis nit koo xam dana yeewu lekkut naanu daan naa ginnaaw lekku ma naanu ma rek kon naa woor te su boobaa kon loolu du sotti waaye dañoo bëgg yéene ji fas ko fanaanoo ko boo xëyee suba mu door a baax loolu mooy farata bu njëkk bi farata mooy euh, maanaam bàyyi lépp loo xamante nii maanaam day dog koor loolu nag dafa mel ne lu tënk la waaye nag lu yaatu la ndax liy dog koor dafa baree bare bare am na lu koy dog ci saahir am na lu koy dog ci baatin euh, loolu am na lu ci Sëriñ Tuubaa leeraloon te ñu ko léegi am na ci li koy dog ci saahir nag bari na ci bokk na ci lekk wala naan wala maanaam ànd ak sa soxna ci bëccëgu weeru koor wala lépp loo xam ni day jàll ci nit ki ba agsi ci mbàq rek loolu da koy yàq moo xam ci nopp lay jaare wala ci bakkan wala ci bët wala ci euh, gémmiñ ak lu mën di doon rek loolu day yàq weer day day day day yàq koor gi euh, ñaari farata yooyu kon la mooy farata bi ci njëkk mooy yéene ñaareel bi mooy bàyyi lépp loo xamante ni day dog koor te liy dog koor nag wax naa ko bu ñu nee bu ñu waxee lépp rek dafa bari ay détails yooyu ñu lim yooyu yëpp ci la bokk bu ñëwee ci sunna yi mm, sunna yi itam lu mat a bàyyi xel la bi ci njëkk mooy gaaw a dog ginnaaw bu la wóoree ne jant bi sona bu la wóoree ne dog jot na jëdut nga fay nekk di xaaraat di taaxirlu déedéet jëlal sa tàndarma nga dog te ñaan gi nga xam ne moom lañ ciy diglee ku ko ci mën nga di ko def mooy allahuma laka sumtu ak yu mel noonu nga xam ne sëriñ bi am na yum ci way bind ko ci nga di ko def boo ko manee beneen sunna bi mooy yéexi xëdd bu xëdd jotee nga bañ koo teel a def lool waaye itam boo koy def na fekk sa digganteeg fenkuk fajar dox lu mat maanaam fukki minute ak juróom nga xam ne soo ko defee fukki minute juróom ngay toog daanaka ñu salaatu nga mën a tam taxawal julli beneen ñetteelu sunna bi mooy maanaam tëj sa gémmiñ ci lépp loo xamante ni wax ju amul njariñ la mooy bébentu loolu ñu tuddee euh, bebentu mooy wax wax ju amul njariñ loolu dañ koo tere ci bëccëgu weeru koor ci jamono bi nga xam nit ki dafa woor kon rawatina na ngay wax lu araam moom jëlale nañ ko ginnaaw ginnaaw ginnaaw bébentu ci wax ju amul njariñ rek lañ la tere waxuma laa kon ngay wax wax joo xam ne wax ju araam la kon sunnay koor moom loolu la mooy bi ci njëkk mooy gaawa dog ginnaaw bu la wóoree ni jant bi sono ak yéexe xet bi fexe ba sa digganteeg fi ñuy salaatoo di dox fukki minute ak juróom bi ci topp mooy sa gémmiñ nga fexe ba doo ci génn jënn wax joo xam ne wax ju suufe lay doon waxuma laak nag kon wax ju araam kon ci tënk daal loolu mooy farata yi ak sunna yi diine dafa am noo xamante ni noon lay noonu lay noonu lay noonu lay avancé wala adduna boog dafa am noo xam ne noonu lay avancé maanaam bu njëkk daanañ gis ne jumtukaay xarale lay bees yi amutoon kon day mel nit ki fu mu jaar ba mën a def yenn mooy yàlla yi sax daawut bari waaye léegi nag dafa baree bari noo xam ndax fi ne nit ki dañ dañoo tere nit ki tey jii maanaam xool loo xam ni lu araam la ci bëccëgu weeru koor fi mu ne da yor sa whatsapp dugg statut yi di xool rek gis koo xam ne lam statut wala xiyaasu billaa maara day taali nga xam ne sa bët da cay tegee noo xam ni yow day mel ni muccoo ca xamoo lu la lu la lu la ko ca tegloo wala maanaam nga nekk ci biir whatsapp bi mën ngaa xëy di dëkk vocal subaak ngoon vocal yoo xam ni amut tàmbuliment amut yemukaay amul la benn njariñ dund day sànq sa dund yooyu yëpp nag li may wax rek mooy dafa bokk ci jumtukaay saytaane yi nga xam ne um, ci mondialisation bu bees bii la ñu ko indil te ñun bàyyiwun ci xel mbir mu ne nag am na la ca dagan am na la ca araam dangay ngay fexe jël la ca dagan nga jariñoo ko la ca araam nga ba maanaam bu ñu la tari jéem na wax joo xamante nii wax ju wax ju wax ju wax ju wax ju wax ju wax ju suufe la rek da koy fexe ba ni nga koy bañ a waxe ci sa gémmiñ noonu nga koy fexe ba whatsapp beeg téléphone beeg fu ci mën di doon nga fexe ba lu la fay yóbbu na doon farata farata joo xam ni xam nga ne du yàq dara sa digganteeg sa diine sa digganteeg sa borom sa digganteeg koor gi nga def fa la nga fa war a def boo fa noppee nga fayaat sa connexion toog te xam ne dangaa nekk ci weer woo xam ni weer wu ñu wormaal la ndax bu dul dara weer wi dañ ko ndax am na benn yahut boo xam ni doomam ci bëccëgu weeru koor la génnoon di lekk baay bi bi mu ko gisee da koo jàpp dóor ko ba muy bëgg dee ko jullit ñi seen weer wi nga xam ne dañ koo wormaal nga ñëw taxaw ci seen biir ci lekk suñ borom yërëm ko ci loolu ba jéggal ko ci tàbbal ko ci àjjana ci acte boobu mu def kon weer wi ci boppam mooy weer boo xam ne weer weeru weer wu wormaal la kon nit ki da koo war a wormaal ci léppam kon wax ju wax ju wax ju amul njariñ nit ki da koo war a moytu jamono bu ne ndax tarkuhu maa laa yaxnihi la yonente bi wax min xusni islaamil mari tarkuhu maa laa yaxni bokk na ci rafetug lislaamu nit ki xam ne amulu ko njariñ bu loolu amee nag léegi wax ju suufe jooju ginnaaw ñu ngi la koy tere bu bëccëgu weeru koor jotee boo góor góorloo ba bàyyi ko da ngay fexe ba whatsapp ak leneen ak leneen ak leneen bu mu la ci yóbbaale jar na sax boo ci amul yite ngay fay sa connexion ba guddi jot boo ko mënta ñàkk nga taal ko kon yooyu yëpp jumtukaay yoo xam ne mënees na cee bàyyi xel bu baax a baax a baax jërëjëf euh, sëñ si Sylla ci leeral yi am solo yooyu kon yaakaar naa ne rek euh, ñu bàyyi xel euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy topp ci 24 actu seen émission gëstu diine ji ci weeru koor la ñuy waxtaane tey wax nañ ci lépp loo xamante ni jëm na ci faratay koor ak sunnay koor mu mel ni foofu rek mën naa ne buñ ci yemoon rek ku ci nekk dina xam lan mooy njariñu koor ak lépp loo xamante ni rek mën nañ ne day yàq sa koor ak loo xamante ni mën nañ ne day gën a yokk sa jëf yu jëf yu baax wala sa yiw yu la suñu borom di fay ci weeru koor bi sëñ Khadim ñu bëgg tamit nga dikkalaat ñëw ci li nga xam ne rek mën nañu mooy muurum koor ak lan mooy mburum koor. waaw soxna su laaj boobu it am na solo ndax mbir la moo xam ni day mel ne ñu baree bare bare duñ ko bàyyi xel waaye nag mat naa bàyyi xel ndax dafa bokk ci koor gi day mel ne ci jeexantalu koor lay ñëw waaye nag daa bokk ci koor gi mburum koor moom lu ñu tuddee zakatul fitri wax nañu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko farataal ci xeet bi yonent bi nag lu mu farataal rek day mel ne moog lu yàlla farataal ñoo ni képp yam moo tax mu ne euh, zakatul fitri euh, saaxun moom saax lay doon ci ni nga xam ne noonu lañ ko war a joxe léegi nag moom buñ koy joxe dañuy dem ba ca koor ga ba koor ga di waaj jeex ba nga xam ne xool nañ ba gis weer wi weeru koor wi ñu xool ko te muy dëgg ñu ne weer waa nga ne su boobaa kenn ku ci nekk war na la nga war koo génne joxe ko moom nag amul xale amul mag amul góor amul jigéen ñépp la war ba ci liir bi door a judd sax kooku moom itam zakatul fitri boobu daf koo war da koo war a joxe kon dañuy wax ne euh, ñi ko war a génne nag mooy ki nga xam ne mënal na ko boppam moo ko war a génne su ko mënul boppam ki ko gàddul ab dundam génneel ko maanaam euh, zakatul fitri boobu euh, ki ko gàddul nit nag ñett ñi muy gàddul ab dund ñii rek la muy ndeyam ak baayam ginnaaw ba nga xamee ne maanaam dañoo ñàkk ba amuñ luñ dunde moo leen gàddul seen dund waaye nag suñu aada ji ni ñuy doxee nga xam ne tey ji da nga gis kër goo xamante ne nii da ngay yor ba yoraale ñoo xamante ne nii sax ay ay ay ay ay xuddaam lañ ñoo xam ne dañ fay nekk di fa liggéeyee ñooñu ñëpp nga génn waale leen ko ñoom itam dara kon ci tënk bi gën a gàtt mooy borom kër gi su mën na wàññi waa kër gépp rek bu fekkente ne nii mënaluñ ko seen bopp mu génneel leen ko ñoom ñëpp rek du ca wàññi dara waxtu wi ñu koy joxee dañoo bëgg nit ki buñ dogee ba noppi maanaam balaa bët di set ñuy dem ca jullikaay ba koo koy jox nga dem jox ko ko ndax dañoo bëgg yonte bi sallallahu alayhi wasallam li mu ci jubloo mooy dafa bëgg bisu korite bu jotee ñëpp am lu ñu waree kenn bañ a dem kër kenn di yalwaan ak di laaj kon nit ki boo ko joxee ci guddi gi te jox ko lu ko doy kooku su ëllëgee waaye wala su xëyee du dem di laaj kenn loolu ci yonte bi sallallahu alayhi jublu waaw léegi ci ndax xaalis lay doon wala dund lay doon loolu am na ixtilaaf ñi ngi ciy ñëw su boobaa nag euh, ki nga koy jox wax nañ ne boo bàyyee nag ban julli ba noppi nga door koo joxe su boobaa maanaam loolu sarax lay daal di tudd dootu doon azakay mburum koor ba tey du boo xëyee suba bala ñu jullit ji nga dem jox ko koy du tee baax na léegi na dañoo wax ne da koy joxe li ëpp ca dunduk maanaam la waa dëkk ba di dunde la waa dëkk ba di dunde loolu la loolu la ñu wax ñu ne kon bu doon Sénégal yi ji ñu ne ceeb moom la waa ëpp dëkk bi ëpp lu ñuy dunde ñu ne nañ ko génne ci ceeb ñu ne nu muy toll ñu ne ñaari kilo ñu ne ñaari kilo ak liibar waaye alaa kulli xaal ñaari kilo ak liibar moom digg doom ma léegi nag ixtilaaf bi am mooy ci xaalis ceeb lañ ko war a génne nee nañ ci xaalis ñii nee nañ ci ceeb am ñu ne déedéet ndax yonente bi sa alayhi wasallam bi muy dund xaalis amoon na te la nit ñi daan dunde amoon na te taxul mu ne génn leen ko ci li nit ñuy dunde euh, taxul mu ne génn leen ko xaalis génn leen ko ci li nit ñuy dunde la waxoon kon taxul nit ki war koo génn ci xaalis waaye nag bi ñu demee ba jamono ji nag yenn borom xam-xam yi ak woyefal yi amaat tax ñu ne ginnaaw nit ki bu doon Sénégal gi boo doxee nit ki ceeb bisu korite day dem jaayiwaat ko def ko xaalis kon jox ko xaalis bi moo gën ci moom moo tax su ko ne ko teewut na du ca wàññi dara maam itam ba tey euh, dana doon loo xam ni daal lu baax la kon asakay mburum koor daal loolu laa ci doon tënkal ci tënk bi gën a gàtt rek ngir nga mën koo xam jërëjëf euh, sëñ Xaadim ba tey leeral yi am na solo ñu dikk ci li nga xam rek mooy yi sopp ci ku ko def ci weeru koor ak yi nga xam ne sib nañ ku ko def ci weeru koor ah soxna su jërëjëf ci laaj boobu itam am na solo bu baax a baax a baax mu mel ne la ngaa bala ñoo ñëw ci laaj bi ci ñii liñ sib ci weeru koor mu am benn boo xam ni danañ ko jaalale waale mbokk yi bàyyi ci xel mu mel ne am na si ñoo xam ne da di faral di gaar lu baree bari ci weeru koor muy lu mel ne wàccu loolu it nañ xam ne bokk na ci yi nga xam ne mën naa yàq ak koor am na ñoo xam ne nii ñi seen tawat demee nu xiifee xiif bu yàgg rek da leen di jural wàccu am na ñoo xamante ni xëdd bu bari rek ñu ko xëddoon fi ne mën na leen di juralaat ñu wàccuwaat ko waaye nañ xam ne wàccu itam bala moo mën a yàq koor day fekk benn maanaam day fekk benn nga tey ko wala tayoo ko waaye bi nga ko génnee ba noppi am na lu ci duggaat foofu rek lay mën a yàqee koor waaye bu fekkee dalaa noot rek daal di génn su boobaa dara nekku ci dana bokk ci li nga xam ne lu danañ ko leeralaal incha allah waaye bokk na nga xam ne daal dañu koy sip ci bëccëgu weeru koor mooy nit ki di ànd ak soxnaam nga xam ne maanaam du ànduk sëy nag waaye maanaam ànduk bànneexu lay doon yooyu sib nañ ko te fi ñu ko sibe sax mooy na fekk nga doon koo xamante ni sax danga mucc ci ne su ma ànd ak moom ci li ñu tuddee ak rafasu maanaam bànneex du du ma ci amee bànneex ba dara di génn ci man waaye bu la wóoree ne sax da nga ci amee bànneex moom far day daal di amu ji araam moom bokk na ci yi nga xam ne sib nañu ko ci bëccëgu weeru koor mooy mos lu mel ni cin noonu nit ki dañ koy tere maanaam mm, bu wooree ba ngoon comme ni jaxate-jaxate def buñ toggee dara di ko mos mos lu ba xam saf yooyu dañ koy tere ndax li tax ko sib mooy mën naa rëcc ba jàll te doo ko yëg bokk na ci yi nga xam ne dañ koy tere mooy nit ki buy socc mu soccoo socc boobu te bañ a soccoo socc bu tooy ndax socc bu tooy boobu nit ki di soccoo moom itam ndox mi bu ko muucoo mën naa jàll te du ko yëg nga xam nga bu ñu waxee baatub mooy loo xam ne soo ko defee yàqu dara ci ci li nga nekkoon maanaam ñàkk gee defit wàññiwut dara ci li nga nekkoon waaye sib boo gisee mooy mi ngi mel ne ñu ne la fële boo fa demee danger nga fa daal na la bul dem fii te fekk fii ñu lay bañ a dem la boo fi demee dara nekku waaye fële la ñuy bañ nga àgg fa euh, boo gisee suñu borom di xam ne al hudud wa man yataxadda hududallah mooy frontière yàlla bu leen koy weesu loolu bañ bañ nga weesu frontière yi nag mooy tax ñu gaaral lii mi ngi mel suñu borom bi ne wala taqrabu zina bu leen jege njaalo njaalo la ñu bëgg a tere mu ne bu leen bu leen ko jege kon loolu la maam kon mos gi nga koy mos wàññiwul dara du yàq dara ci koor gi waaye li tax ñu di ko wattandiku loo mooy mën naa rëcc dugg bu fekkoon dañ na dagan na da nga gis nit defe ko noo xam ne mën naa rëcc dugg te te te te du ko yëg kon ku koo xam ne yow dong yaa fa sës yaa ko mën a xoolal sa bopp mën nga koo xoolal sa bopp loolu ayut bokk na ci yi nga xam ne tere nañ ko bu baax a mooy di bébentu ci wax ju amul njariñ waxoon waxoon waxoon waxoon waxoon nañ waaye bokk na ci yi nga xam dañu koy sibitam mooy lu mel bari na ñoo xam ne tàmm nañ ko waaye nañ koy wattandiku moom itam parce que mant boobu di saf ak loolu mën nay rëcc di dugg moom itam te doo ko yëg kon ku ko mënta ñàkk bañ a def soo xëddee ba noppi nga def ko balaa fajara fenk wala bu guddee boo dogee pare nga def ko waaye di ko def ci bëccëgu weeru koor wóorut ndax moom itam dara mën na ci rëcce daal di dugg te maanaam euh, doo ko yëg kon yi nga xam ne sib nañ ko ci bëccëgu weeru koor moom ci tënk rek loolu laa la ci mënoon a leeral incha allah jërëjëf sëñ Xaadim leeral yi am na solo macha allah ñu ci li nga xam ne rek mën nañ ne moom mooy ngëneeli weeru koor ak njëriñ yi nga xam ne mën nañ ne bëri na lool ci weeru koor sëñ Xaadim nga dikkal ñu foofu ci ngëneel yi ci weeru koor waaw soxna su mu mel ne ngëneel yi nekk ci weeru koor nag day mel ne daanaka mënees naa xaw a wax ne ngëneel la yoo xamante ni suñu borom rek moo ko moo ko moo ko moo ko xam ci nga xam ne maanaam defal na ko doomu aadama bi ci weeru koor ndax ay ngëneel la yoo xamante ni suñu borom mi nga xam ne moo bind doomu aadama xam lam ko mën a fayee su ëllëgee xam lam ko ci mën a defal su ëllëgee moom rek moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko mën a xam ngëneel nag ñaare daanañ ko wax di ci di ci di ci di ci di ci di ci di ci jublu ñaar Euh, jubluwaay bu njëkk bi mooy jëmmi jëmmi weer wi ngëneel li nga xam ne am na ko moom ci jëmmi boppam ci ay tawféex ci ak fay ci li nga xam ne ci la suñu borom defal am ngëneel yoo xam ne nag mooy lu ñu tuddee al manduub ay manduubaat yoo xamante ni yéen téere fiqi dañ koy firee noonu yéen ñi di ko wax manduubaat yéen di ko wax ngëneel euh, ngëneel yooyu nag mooy li nga xam ne dañuy sopp bu weeru koor jotee nga di ko def ak yu mel ak yu demee noonu euh, bu fekkente nii nag ngëneel yi nga xam ne moom la ñuy sopp ci nit ki mu di ko def mooy dañoo bëgg moom bépp jaamu yàlla goo xam ne daanako def bu weeru koor dikkee mu bokk ci li nga xam ne maanaam daf koy yokk bokk na ci yu mel noonu naafila naafila googu Seydina Omar moo ko fi indi ñu koy daje di ko def ci jàkka yi di ko def eh, fukki ak ak safa ak witar di ko naafila alxuraan loolu bokk na ci xam ne ngëneel yi yi nga xam ne ci weeru koor gi la bokk jàng alxuraan boo ko daan def benn nga yokk ko def ko fukk salaatu ala nabi lépp loo daan nga yokk ko def ko fukk ndax weeru koor dafa bokk ci xekk eh, ma suñ suñu borom def eh, fukki fan yu njëkk yi yërmande la yeneen fukki fan yi ci topp njéggal la maxfira la yeneen fukki fan yi ci topp goreel ci sawara la kon ñetti ngëneel yooyu rek bu ci nekk rek kon day mel ni kon doy doy na sëkk taxawaayu taxawaayu boobu noonu nga xam ne maanaam moom la moom la moom la moom moom la weer wi am kon yooyu mat nay bàyyi xel baax te xam ne weer wi ginnaaw weeru promotion la boo xam da nga ciy njëkkante li nga ci am mën nga ko ja bañ a amaat ci beneen maanaam mën nga kon loolu mat na cee bàyyi bokk na ci ngëneel yi nga xam ne nag jëmmi weer yi moom am na ko mooy wàcc gi ci wàcc alquran ndax fii laylatin mubarakatin am na fu mu ko waxee daal di wax ne am na fu mu waxee ne zahru ramadaan la si unzila fihi alquran weeru koor ci laa wàcce alquran daal di ne mi ngi ko wàccee ci guddig laylatul xadar ba tey ci biir loolu mu def laan ñu ci geneen guddi muy guddig laylatul xadar ndax wax na ci biir weeru koor sax am na ñu wax ne euh, guddi googu ci la suñu borom di tàqalee ñi war a jëm àjjana ñi war a jëm euh, ñi war a fekke déwén ak ñi ko war a fekkee am na ñoo xam ne ci aaya boobu lañ sukkandikoo wax ne am na ñu ko yóbbu tamxarit waaye am na ñu wax sukkandikoo ci aaya boobu wax ne maanaam suñu borom foofu la ndax inna anzalna fi laylati mubarakati inna kunna munzirin daal di cee teg na fiiha yufraxu kullu amrin hakim fiiha yufraxu kullu amrin hakim boobu am na ñu ci lañ sukkandikoo ci ne ci lay tàqale yooyu guddi gi gën ci guddi yi nag nga xam ne boo ci jaamoo ba suñu borom nangul la ko moo gën nga jaam nga jaamu ci junniy weer te junniy weer moo tolloog maanaam euh, dundug doomu aadama ci guddi googu weer koor ci la ko ci lañu ko suñu defal mooy laylatul xadri xayrum min kon boo ci jaamoo ba suñu borom nangul la ko mook nga jaamu yàlla junniy weer ñooyam te junniy weer boo ko calculé mooy tolloog daanaka dundug doomu aadama kon ngënee li ci nekk moom bari na bari bi ba jeex waaw xam naa ñu desandiwaat euh, ci weeru koor bi ak yaatal gi nga xam ne rek ànd nañ ceeg Serigne Khadim Sylla xam naa rek ñu bëgg nga ñëwal ñu ci koo xamante ni dog na ci weeru koor te tay ko kooku lan mooy ab atteem ginnaaw loolu tamit nga ñu bëgg nga tëjaleen ñu ko euh, suukaru koor ak anam bi nga xam ne gis nañ euh, suñu di ko joxee léegi ndax gis nañ ne dañuy gis ñoo xamante nii boo xoolee maa ngi jéglu ci kàddu gi ak ña ko war a wax am ñoo xam ne ci wàllu puukarante lañ koy def am ñoo xam ne ëppante daraja am ñoo xamante ni dañ koy joxe ngir ñu gërëm leen wala ñu sant leen ci foofu tamit bëgg nañ nga indil ñu ci ay yaat lu yaatoo yaatu rawatina suñu mbokk soxna yi waaw ah, jërëjëf soxna su euh, question boobu am na solo rawatina li nga xam ne nag day yàq ak koor wala koor goo xam ni dafa yàqu moo xam dangaa dogta tey ko wala nga dogta teyoo ko loolu lu mat a xel la ndax bu ci nekk dafa am nun ko war a lijjantee waaye nag li ci am solo rek mooy nit ki xam ne moom weeru koor moom ku ci dog rek da ngay fay moom moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko moom dangay fay moom léegi nag ñu lijjanti bu fekkee teyoo ko nan ngay faye ak bu fekkee yaa tey nan ngay faye bu fekkee teyoo ko da ngay fay rek bis bis bi jàllee weeru yu jàllee bis boobu danga koy fay rek waaye am na lu mat a bàyyi xel nag mooy ki ki juum lekk wala mu juum naan na xam ne bis boobu du tee day continuer woor du continuer di lekk di naan nu mu ko soobee du ne dog naa rek kon naa continuer lekk naan déedéet day continuer woor waaye du bu jàllee daf koy fay bu dee nag euh, dafa dog te tey ko kooku moom xawwi na sutura su weeru koor kooku kafaara rek mooy tax li mu defoon mën a baax euh, kafaara gi nag mooy euh, su ko manee maanaam mu goreel mu mu leel juróom benn fukki miskin ndax moom lañ ci gën a taamu moo tax ñu njëkke ko mooy juróom benn fukki miskin kenn ku ne nga jox ko mudd niki tey ji kenn ku ne nga jox ko Euh, ñaari kilo wala ñaari kilo liibar nga xam ne da koy euh, doy sëkk boo ci amee juróom benn fukki nit nga jox leen ko su boobaa loola wàcc na la jeex na bu fekkee mënoo ko nag euh, nga goreel ab jaam ci jamono bi gor ak jaam di am ñu koy teqale ci lislaam nga goreel ko bu fekkee ñaar yooyu nag tële nga ko nga woor ñaari weer yoo xam ne dafa toftaloo amut xaajale boo leen xasee xaajale day yàqu da nga koy commencé waat waaw kon loolu noonu la ñuy fayee ci koor goo xam ne nit ki daf koo tey mu war a kafaara bu fekkee lu aju ci euh, suukaru koor nag muy loo xam ni lu ama am solo la ndax euh, léeg-léeg nit ki dana dana tàmbali ak jaamu yàlla mu am solo lool dem ba ca biir nag maanaam lu koy yàq daal di ciy dugg di ko tàmbalee yàq te te te du ko yëg ndax dégg nga ci alxuraan suñ suñu borom di wax allazina yunfiqoona euh, am yunfiqoona amwaalahum ñi muy wax ne maanaam dañuy jël seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla waaye bi ñu koy dépensé nag bëggul ci lu dut maanaam ngistal maanaam nit ñi gis leen rek xam ne ñi ngi def nangam euh, loolu nag fu mu xas dugg rek kon day mel ne kon joxe ci yoonu yàlla baax na ndax suñu borom dafa dafa wax ci alxuraan ne euh, in tubdu sadaxaati fa nihimmaa hiya waaye wa in tuxfuuhaa wa tuutuuhaa fa huwa xayrun mu ne li ngeen di jël di ko joxe ci yoonu yàlla su ngeen ko feeñalee day baax na man yàlla bëgg naa waaye nag su ngeen ko mënee nëbbu ba kenn du ko yëg lu dul man ak euh, lu dul man ak yéen ñaar ñi ko jokkalante rek man yàlla loolu moo ma gënal kon mu mel ne suukaru koor li muy baax baax baax boo fexee ba ki nga koy jox nga yëkkati ko jox ko ko yéen ñaar képp ak yàlla ngeen yëg ko loolu moo li gën waaye nag léegi dañ cee dugal puukaréew ak maanaam def ca lu ñu nga xam ne maanaam euh, léegi anam bi mooy defi def defee ko noo mënut nga xam ne léegi yàq nañ ko ba di ci dugal loo xamante ni bokk ci woon ñii ku nekk la nga jàpp ne rek boo ko yëkkati woon joxe ko rek danañ la mën a tagg yëkkati la ci kaw nit ñi rek lu mel noonu ngay yëkkati di ko joxe te fekk euh, mbir mi demeewul woon noona ñii eh, ay peñe la ñuy jël ñii jël ay jees jesneer ñii jël ay leneen ak leneen leen yoo xamante ne nii boo leen toppoon ba ci biir dangay xam ne joxeetuñ ko ngir yàlla te yàlla tax waaye nag ñi ngi koy joxe ngir bëgg ci aw tagg te doomu aadama lépp lu muy joxe di ci bëgg aw tagg wala lépp lu muy bàyyi da ci ragal aw xas rek loolu yàllay kese daa taxatut kon nañ koy bàyyi xel bu baax a baax te xam ne jëf dafa metti eh, ñàkk sa alal ñàkk fayug yàlla rek loolu dara gënu koo metti li ëpp solo mooy ñàkk sa alal ba noppi am fayu yàlla moo moo moo moo ëpp moo ëpp moo ëpp avantage ci doomu aadama bi kon nit ki nay fexe ba bu ñàkkee alalam mu fexe ci am fay yàlla waaye ñàkk sa alal ba noppi eh, amoo ci fayu yàlla lu dul jërëjëf ndax suñu borom dañoo xam ne nit ñi nga xam ne dañuy ngistal dañuy joxe seen alal te yàlla taxut bu ñëwee ba yomal xiyaam yàlla dara yoo ne leen ana la taxoon ngeen jëf-jëf ja mooy nit ñi ne leen waaw góor ñu ne waaw ñu ne waaw wax nañu leen waaw góor ñu ne waaw ñu ne kon jeex na kon jëf ji foofa rek lay yem waaye du àgg ci suñu borom ba mu mën di ko nangu ak di ko kon ku ci joxeeti suukaru koor na yëkkati la nga xam ne moom méngook suukaru koor te joxe ko te yàlla tax bañ ko ba bu koy joxe sax kam koy jox ñoom ñaar képp ñu xam ko waaye nag di ca dugal mbirum àdduna moo xamante ne wala boo koy def woo ay nit ñoo xam ne ñoo la koy yóbbul yooyu yëpp dafa dugg ci àdduna te euh, suñ euh, sëriñ bi dafay wax ne nit ki moom lépp lu muy def rek te tëggu ko ci kaw xam-xam lu koy yàq mën na koo rax te du ko yëg kon nit ki nay fexe ba lu muy defati na ko laajte ba xam lan lañ ca àtte mu dem defee ko noona moo koy jural jàmm waaye bu fekkee xelum boppam rek la sukkandikoo moo koy jural li muy def tey mu defee ne baax na ba ëllëgee mu ko yokk ba ëllëgee ba dugg ci biddaa boo xamante ne nii euh, lam ci doon seenu lépp léegi euh, safaan la cay am waaye amatu ca tey fayug yàlla di leen ñaanal kooruk jàmm rek euh, di leen sant bu baax a baax itam yéen waa 24 actu ci invité bu am solo bi xam ne invité ngeen ma ko di leen wax ne itam benn donga daara la rek boo xam ne dafay nekkoon di jéem Euh, du caagi ne li ñuy wax euh, luñ man la wala luñ xam ndax xam nañ ne ay nit ñu ëpp xam-xam foofu ñu ngi ñuy déglu euh, wala ñu ngi fi kon bu ñu tànnee indi ñu fi teg ñu fi nañ xam ne dongala boo xamante ni bu bu bu toll ci jàng rek la daal nañ ko jàppee noonu lu ciy njuumte ñuy ñaan doomu aadama yi ñëpp jéggal ñu ko lu ciy njariñ itam ba kenn ku ci jariñoo ñuy ñaan suñu borom mu def ko tuyaaba te ful ko ñun ñëpp ñu bokk ko leen li ci topp itam mooy di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala balaa bi nga xam ne wàcc na ko ci kaw suuf nga xam ne daj na adduna bi kàpp uh, mu mu mu mu mu mu jëlewaat ko fi ndax moom rek moo ko fi mën a jëlee kon nañ koy ñaan jamono bu nekk moom mu jëlal mu jëlal ñu ko fi ndax nam ko waxee ci aaya ba wax ne danaa leen nattu ci seen ci seen uh, alal uh, ak seen bopp ak seen meññet ak wàññi seen alal waaye nag danaa bégal ñi nga xam ne dañuy muñ ne ci yàlla lañ jóge ci yàlla la ñuy dellu ñooñu lay bégale aljanna kon nag nañ xam ne nattu la ñu muñ ko waaye ci kaw muñ ko nag nañuy ñaan ndax ad duhaa u silaahul muslimin kon ñaan moom ngànnaayu jullit la kon nag nañuy ñaan di ñaan di ñaan rek suñu borom moom buñ dee ñaan rek bu yàggee ñu yërëm mu ma wuññil ñu njàqare lii nga xam ne moo fi nekk ndax am na ñoo xam ne ka tawat ji dalu leen waaye li leen dal moo gën a metti tawat muy bekkoor bi leen dal kon nag ñu ñaan suñu borom mu saafaraal ñu yëpp rek di wax in uridu ilal islaaha mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu suñu gan bu baax di ko gërëm mu nekkoon nag tey ci seen émission bi gëstu diina ji ñu doon waxtaane nag li nga xam rek moom mooy di weeru koor ak ay njëriñam ak sunna yeeg farata yi ak lépp loo xam ne rek mën nañ ne bokk na ci weeru koor rek tey ji mën naa ne faram nañ ko ba jàpp naa ne ñi nga xamante ne a mën a amee xam-xam jaajëfal mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi siiwul seen site internet bi di 24 actu waaye itam di jaajëfal suñu caméraman bi di Modou Modou Diouf ñu ngi koy jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm waaye itam di ñaan um, suñu borom subhanahu wa mbas mi nga xam ne moo lëmbi àdduna bi yàlla na ko fi suñu borom jëlee moom mi nga xam rek moom moo ko fi mën a jëlee yàlla na ko fi suñu borom jëlee te uh, gën a jàppalewaat doomu aadama yi gën a saafara seeni rahmatullahi taala wa barakaatuhu